mi yëkkati woon kàddu yu ñagas lool te ñàkki teggin teg ko ci dërub njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ki nga xam te moom moo di ilimaani jëwriñ ji Ousmane bi di L'As Quotidien nañu daal yoon daal dina koy fekki bu Sénégal di na ngan fa nga bi daal di fësal ci xëtam bu njëkk nataalu njiitu réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak bu France Emmanuel Macron ñuy saafonte joxante loxo journal journal ba daal di cay yokk nag di camisette Diomaye et Macron ñoom ñaar ana mooy li nga xam moom la ñuy bëgg jamono jile extradition et jugement du président Sall club citoyen ni ñu ngi koy lancé te la nga xam te moom la ñu ci nag mooy ñu daal di indiwaat ki nga xam moom moo di Macky Sall fii ci biir Sénégal nag ngir daal di koy atte waaye tamit teg ko loxo gannaaw ba nga xam te ñoom jàpp nañ ni am na ay ñaawteef yoo xam te ni njiitu réew bu Sénégal bu woon di Macky Sall def na ko ci biir réew bu Sénégal le quotidien yéene yéenekaay xëy naka moom dikkaat ci drame de l'immigration irrégulière mu ne vie naufrage ay nit ñoo xamante ne saa su ne rek dañuy ñàkk seen bakkan ci biir waaxi Sénégal yi te dara waralu ko nag lu dul dañu jël ay gaalu loo ci ne dañu bëgg dem fa nga xamante ni moom moo di ca tugal mu ne nag ñaar fukki nit ak juróom ñoom ñoo daal di faatu ci biir géej gi waaye tamit ay sénégalais yoo xamante ay gambien ay malien yoo xamante ñoom ñëpp bokk nañ ci gaal ga nga xamante ni moo bàyyi ko woon ci suñuy waax bëgg a wutali foofee yoo tugal te daal di mujj suux nag ba lu tolloog ñaar fukki nit ak daal di mujj Sénégal noonu ko le quotidien yéen xam ne waaye tamit journal bi di kaat ne ci li xam te moom moo di coowal Ahmed Suzanne Camara mi nga xam te ni kàddu ñagas a ñagas te ñaaw lool la yëkkati woon teg ci deru njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ilimaani Diourina ba tax nag le quotidien yéen nañu fi mu toll ni daal moom teg nañ ko loxo yóbbu nañ ko ca ndungu si noonu la journal bi xam ne Walf Fadjri quotidien bakkan ñeneen ñee daal di ñàkk seen bakkan ci ay conditions yu doy waar noonu la ko Walf Quotidien xam ne ki nga xam te moo di professeur Serigne Mor Mbaye nekk psychologue réew fi mu toll nii daanaka ci dëj la nekk ndax nag ñi xam te ñoom ñoo fi bàyyi ko wuy ji seen borom jamono jëlee bëri na lool ba lu ni mel nag tax na ki nga xam te moom moo di professeur bi daal àdduna ci mbir moom lay joxe ci xalaatam waaye tamit lu ñeel wàlluma immigration clandestine Walfadjri Quotidien moom itamit dikkaat na ci mbir moom la peine à dissuader les jeunes li nga xam te moom di projet bi nga xam te waa Pastef indi nañ ko jamono jilee nekkagul daal loo xam ne ne dana tax ba ñi nga ñu ngi koy jël jamono jilee di dem foofee ca tugal noonu la ko journal bi di Walf Quotidien xam ne waaye tamit licenciement ci ati jaari banque le ministre du travail pris en flagrant délit de conflit d'intérêt moom ki nga xam ni moom di jëriñ yor lu jëm ci wàllum xëy naka dafa am na ko foofee ca nañu implication de la communauté éducative Guirassy à l'écoute de l'UNAPES moom nag mu ngi leen di déglu jamono ji waaye tamit lu jëm ci wàllum forum d'échange sur les services à valeur ajoutée l'ARTP soutient les SFVA noonu la ko grand panel xam ne Sud Quotidien nañu nag accès au logement et à la propriété foncière et immobilière Diomaye face à une caster ki nga xam te moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay daanaka jafe-jafe am na ko jamono ji lee nekk ngir daal di gunge askanu Sénégal bokku ci nekk dëkk wala yi tamit yeneen yi jëmtuwaay yoo xamante ne dana ku nekk da nga jàpp ni yaa koy moom ne nag loolee sunu njiitum réew daal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye am na ci ay jafe-jafe jamono jilee noonu la ko Sud Quotidien xam ne les échos yi ne ñu nag li nga xamante ni moo ñeel wàllum ordre des avocats les raisons de la convoitise du de bâtonnier li nga xamante ni moo ñeel wàllum bâtonnier fi toll yi bëri na daal ñu xam ne waaye tamit les échos waral crise interne bi am ci au pays du soleil levant mu ne nag le Japon règle ses avec le secte Moon au Sénégal ñi nga xam ñoom ñoo bokk ji boobu lépp secte Moon waa Japon fi toll nii am ay jafe-jafe ak ñoom ci seen biir tax na nag ñu ngay jëm seen kéemtulaay kàttan ngir nag indi ay saafara ci la nga xam ñoom na nekk seen diggante enquête quotidienne nañu absence pure Gakou et Déthié Fall le silence des ñi nga xam ñoom ñoo waar parti pur waa Malika Gakou amul kenn koo xam te dégg nga ñoom ñu daal di àddu wax ci li nga xam te moo ñeel gouvernement bi na muy doxee la nga xam te moom moo nekk ci biir noonee la ko journal bi te moom moo di Ahmed Suzanne Camara ki démb dañ xam te moom moo di ca sécurité urbaine la ko waral nag mooy kàddu yu ñaaw te ñagas lool moom la yëkkati teg ko ci daral ki nga xam te ni moom moo di ilimaani jëwri ji Ousmane Sonko ak njiitu réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba tax na nag yoon daal di woon koy fekki ah, teg ko loxoom noonee la ko journal bi xamle waaye itamit le Dakar waay yéenikaay moom itamit xëy dikkaat ci wàllum augmentation bu capacité de raffinage de la SAR mu ne nag le Sénégal s'ouvre à l'exploitation locale du brut de Sangomar daal dinañuy tàmbali mbir moomee nag li nga moom moo di pétrole ba ñu fay liggéey tàmbali nañu ko génne nag da ko yóbbu ca tugal loo ne la ko journal bi xam le l'indépendant yéenikaay moom itamit xëy dikkaat ci li nga moom moo di gaz bu Sénégal Mauritanie visite sur le navire PSO du GTA le projet réalisé à projet boobulee daal daanaka luy tolloog quatre-vingt-quinze pour cent ci boobule projet daal dinañu koy liggéey le quotidien yéenikaay xëy naka dikkaat ci li nga xamante mooy ay nit ñu daal di koy jël def ko màkkaan ñoo xam naka la ñu koy mën a jëfandikoo le témoin yéenikaay xëy na def ci ab jàngat bu yaatoo yaatu mu ne si les différents pouvoirs avaient laissé pourrir la situation ñi nga ñoom ñoo di kilifa yi te am sañ-sañoo jël dogal ci mbir moomu ngir nag daal di cay indi saafara mu ne ndax nag ñoom dañu seetaan askan bi nga xamante ñooy dem ci mbeddum moom mu di Moustapha Guirassy ak Olivier Boucal seen bëgg-bëgg jamono ji mooy daal amal jokkulante bu ko defee nag li xam moom moo nekk bànqaas yi xam te ñu ngi koy jiitee mu gën a mucc noonu la ko journal bi xam ne le verdict yéenikaay nañu offense au chef de l'État Ahmed Souzane Camara arrêté par la sûreté urbaine leen moom nag gannaaw ba nga xamante ni yëkkati na ay kàddu yu ñaaw loolu teg ko ci deral ki nga xam te moom moo di Ilimani jëw di njëg njiitu réew mi daal dinañu koy teg loxo nag garde ko à vue libération yéenekaay nañoo ligne di FONGIP exécuté par le Crédit Mutuel du Sénégal mafia des financements démantelé noonu la ko journal bi xam ne mu ne nag bëri na ay jafe-jafe yoo xam te ni nemmeeku nañu ko ci mbir moom le journal bi di na ci ca na mu g a yaatoo direct news nañu eau potable et inondation à Touba la hantise d'avant màggal màggal gi jotagul waaye nag li nga xam te ni jafe-jafe nga xam te moom moo di ca diwaanu Touba nag mooy askan ba am ndox mu sell moo xam te danañ ci mën a li xam moom moo di mbënd ma nga xam te tàmbali nañ lool te nag ah, daanaka ay fan moo des ci li xam moo di màggalu Touba ndax nag danañu am ay saafara ci mbir moomu lee am deeta le public yéeni kay xëy nag di kaat na ci ay consité au chimère Alioune Badara Thiam mu ne nag ana lan moo di taxawaayu kër googee nga xam te ni kii di Alioune Badara Thiam ñu gën ko xam ci ay kon di ab woykat doomu Sénégal nekk foofee ci mu Amérique ne woon nag xam te moo nekk ca boorim boo jën tudde ko Akon City ñu ne naka boobu le projet ana fan la toll ndax naka mu nga ca wala naka lu ñu mel fi mu toll ni daal mënees na ni ndax saay na furaas daal lu xëddeen am déet journal bi daal dina xëy def ci jàngat waaye tamit samp ab laajaay ci loolu yi nga xam te moom moo nekk dëkkuwaay boobee nga xam te ni kii di Akon bëggoon na ko tabax ci biir réewum Sénégal tribune yéenikaay xëy naka dikkaat ci meneenu mbir mu ñeel jëye ji nga xam te mu ngi wéy ba léegi ci biir réewum Sénégal ñeel wàllum immigration clandestine mu ne geneenu gaal goo xamante ni mu nga doon dem fa nga xam te moom moo di ca xam te nemmeeku nañ ko ca ci ay jafe-jafe gannaaw ba nga xam te gaal ga suux na luy tolloog ñeen fukki nit ak juróom ñoom ñoo ca daal di faatu téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñoom ñoo daal di réer na kenn gisu leen téeméer ak ñett la ñu daal di sauver vingt-cinq repêchés ñoo nee la ko tribune yéeni kaay di xam ne mu mel ni kon li nga xam te moom moo di jéey barça wala barsaq mu ngi woy di am ba léegi ci biir réewum Sénégal l'évidence quotidienne nañu nag réserve en ressources naturelles au Sénégal mille milliards de mètres cubes de gaz six cent soixante millions de de pétrole mooy li nga xam te ñu ngi ko réservé ci sunuy waax noonu ko journal l'évidence quotidien daal di xam ne yor yor quotidien nag xëy dikk ci meneenum mbir mu ne nag kër gi nga xam te ni moom la ñuy appel d'offre noonu ko yor yor quotidien daal di xam ne ba tax nag mu ne ñëw DCPM freine la boulimie de Doura Baldé la nga xam te noonu la Doura